salaamaaleykum salaamaaleykum am internet Thiès Info ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ku ci nekk sa tur ak sa euh, leen jox leen seen wàcc waaye kontaane leen di bég bu a baax ci seen euh, confiance qualité gi ngeen am ci euh, li nga xam ne moo di Thiès Info ba saa su nekk rek ngeen ñuy topp ci suñu ay programme mbokk yi ñu ngi bég yéen bu baax a baax man Fall Damel ma àddu leen xam rek ni leen bég nañ ci yéen continuer leen nag di wéy di ngeen koy defee rek saa nekk ndax nee naa leen bu neexee fii la bu la ay ca yi tey nag dama am gan ah, koo xam ni kenn dootu ko présenté ci askanu sunu gaal rawatina nag ci dëkk bi ñu nekk di cees kaay benn dëkk ñaari gaar moom sax mën nañ ko tuddee gaar ndax euh, li mu fi def euh, rek euh, def na fi loo xamante ni wax dëgg yàlla képp ku ko xool xam ni ndaanaan la ku lu mi ngi wóo ci turu Issa Diall Issa ñu ngi lay nuyu di la maa ngi nuyu Thiès maa ngi nuyu Sénégal nuyu Afrique nuyu àdduna bi parce que dañu nekk ci xarala yu yees yi. ndax ñoo ngi fii ci Kajoor di waxtaan waaye wóor na ma ni àdduna wërngal képp ñu ngi ñuy bàyyi xel. Euh, Damel maa ngi lay jox cër. Mhm. maa ngi lay bëggee di la kontaanee Issa Diall tey jii ñi nga xam ni xamuñu Issa Diall tey jii boo doon wax ana kan mooy Issa Diall kàddu gi lan lay doon. waaw mi ngi takku nag ci ki ngay waxal ndax bu fekkee ni kajoor gi la bu fekkee ci milieu sport bi am na ñoo xam ne mën nañu ne ah kii xam naa ko ñoo nekk ndawoon ASC Thiès kii ni ah kii xam naa ko ñoo football ndoo mhm. kii ni nawetaan yi ah ñoo nekk ndawoon si mi ñoom ñoo fi njëkk jël phase nationale ci wàllu ay cadets yi demee noonu. Mhm. bu dee dans le milieu associatif également mën na la ni non kii xam naa ko parce que ñoom daam Sène ak ñoom Baye Serigne ak ñoom Abbas ak genre googu daanaka ñoo leen doon encadré ni yóbbu Oscar des vacances wala nga ni centre culturel régional dans les années 1996 ñu nekkoon ci di yëngatu ak ñeneen euh, am na ñoo xam ne naan kii sëñ bi Issa la parce que duniyaa bi mu sosoo duniyaa kii moo fa nekkoon sëñ bi Issa donc loolu yëpp ay mandarga la yoo xam ni boo ci bàyyee xel mhm. euh, di nga mën a wax ki nga doon mën nga ni it kii ndongo daara la boo xam ni jàng na CM Djibril jaw fii ci Thiès ba niveau troisième mu jóge fi ginnaaw bi dem Dakar jàng eggale Limaamu Laay doog dooga dooga doog ñëwaat fii loole tamit ay ay ay mandarga la wa illaa sax ci boppam nga ni kii Thiès la juddoo Cité macha allah loo <laughs> am solo ñu dégg say kàddu nga wax ba tudd ci rajo euh, indi tamit benn tour moo xam ni euh, xam naa ni boo ko tuddee Thiès ñëpp ni euh, waajaa ngi mm-hmm. muy sëñ muy sëñ bi saa ci ci ci ci ci jamono jooju ci lan nga nekkoon ci rajo yi animation wala waaw waaw xam nga booba la jamono ñu door a commencé di ubbi rajo yi fii ci biir Sénégal yëpp groupe Excaf Télécom mm-hmm. commencé di dem ci région yi cees nekk première antenne boo xam ne moom lañu ubbi mm-hmm. je me rappelle pour la petite anecdote keroog bi ñu ma woowee ni ma ñëwal euh, waa Flash yi laa nekkaloon maa ngi nekkoon ak Yad Blanc Plume maa ngi nekkoon ak Maxi Thiam di ko nuyu xam naa ma nga state actuellement di ñu xool. Mhm. mais gars yi fi nekk aussi ah Koulou Racine Toto yéen ñëpp gars yi maa ngi leen di nuyu maa saane depuis France yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu foofu la ma fekk. macha allah ma dem fekk fa benn doomu Thiès aussi. Mhm. bu tudd euh, Aminta Sall. Mhm. Aminta Sall ñëw ni ma. ah dañ ma booleeg yow ñu ni naa la woo ceci cela mais actuellement ñun amaguñu rédaction amagul journal mhm. ñun amaguñu ay magazine mhm. fi mu nekk daal programme d'animation musicale moo fi nekk mhm. ma ni ko mais amul solo amul solo parce que booba virus animation mi ngi may dugg parce que pratiquement <laughs> sama xarit yi ma amoon yëpp yëpp yëpp yëpp pratiquement si dans ce milieu mën naa tudd ko mel ni Aziz Samb mën naa ci tudd ku mel ni Aline Wade. Mm-hmm. mën naa ci tudd ku ku mel ni euh, Ben Mamina Diémé. mën mm-hmm. naa ci tuddu le grand euh, Didier Mbaye parce que je l'appelle doyen jusqu'à présent. parce que moom a jiitu ci média yi. même bu fekkee ni sax xëy na yoon bokkul mais yooyu. donc bu ma ñëwee foofu ñu jox ma euh, desk animation. Mm-hmm. ma yore fa ay émissions yu mel ni noo ko bëggee. Euh, mu nekkoon loo xam ne man sans boo daf ma marqué. parce que na ma ko bëggee woon sax wóoruma ndax noonu lañ ko bëggee woon waaye noonu laa ko bëggee woon man. <laughs> Euh, amoon fa programme tout tuddoon euh, loo indaale. Mhm. donc ça passait tout les samedis amoon fa ay programme tudd mel ni laaye biir pour conscientisation. Mhm. moom mooy confidence ma gis ñu def léegi gi demee noonu. Mhm. def fa également des événementiels. parce que un homme de médias ce n'est pas seulement koo xam ni da ngay toog entre les quatre ñun on a initié également fii à Thiès euh, version régionale bu Oscar des vacances. Mm-hmm. à l'époque tuddee woon ko volcan vacances. Mm-hmm. dañ ko defee ci mairie bi avec la subvention du maire de l'époque Moustapha Ndiaye. nekkoon fi maire. Euh, par la suite avec mbay euh, Mbaye Diouf mu jàpp la ñuy yóbbu woon ko boobu amitié mi ngi am mm-hmm. et de fil en ñuy marqué un territoire dans le paysage culturel ba ni ñu yàlla jëlee Thiès yóbbu ñu jox ñu neen responsabilité ñu nekk ci loolu ba tey jëlee. booba ba tey it maa ngi nekk un homme de média. macha allah macha allah loolu yombul ah mu nekk jaar-jaar bu am doole jaar-jaar bu am solo itam jaar-jaar boo xam ne xam naa ni ñi ko xam ci Thiès kaay ñëpp kenn du ko ci fàtte. Mm-hmm. ndax comme ni mu ko waxee noo ko bëggee xam naa ne sax ni nga ko bëggee woon <laughs> noonu la ko gars yi nga xam ñoo la daan déglu <laughs> bëggee woon. waaw ah. parce que instant boobu mm-hmm. euh, mi ngi ñëw ak euh, benn album boo xam ni. Euh, noo ko bëgg bi ci la nekk woon mm. mu nekkoon maintenant benn concept parce que c'était au-delà de dire seulement que euh, noo ko bëggee nii laa ko bëggee du woon du woon rek loolu moo nekkoon mbir mi euh, waaw loolu moo ci war a tegu normalement <laughs> mais mu nekkoon nag léegi est-ce que na nga koy defee baax na parce que ñun la gën lañ doon wër mm-hmm. donc buñ la nee noo ko bëggee bu buñ naan dugg émission bi noonu lañ ko daan defee dañ daan ñëw wax salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki Thiès ak li ko wër sëñ bi Issa teew na ci juróom-ñett fukk ak ñett yu tomb juróom-ñaar ba am ngeen jàmm loolu moom doon la na ma ne am naa jàmm jamono jooju ay ñoom ndax amoon nañu jàmm. ñu nekk daan waxtaan weccoo xalaat di soo sama xel mi ngi dem instant bi tel ci suma siste boo xam ne mi ngi ñëw vacances euh, Aïcha Kane mm-hmm. parce que on a fait les beaux jours de Dunia ay Simon ay ay DJ Pi fa lañ ma fekk après mm-hmm. ah, euh, ay Max Maguette yàlla na yàlla yërëm ko ay Xaali euh, ñooñu ñëpp daanaka daal bu weesoo Simon duniyaa ku fa dugg maa la fa dugal. macha allah loolu yàlla dugal ba ci Babacar Ndiaye ma fu mujjoon nekk chef de station maa ko jàpp ci loxo dugal ko fa. macha donc euh, dafa ci mbir yoo xam ne yàlla moo koy sabab jaar la ko ci doomu aadama ala kulli haal ñu nangu woon dogal boobu nag quoi daawuñu ci xool lenn lu rek lu jëm woon Cees kanam. Mm-hmm. képp nag. am na solo am na solo am na solo kon kay yow ku la dégg rek xam ne yow acteur acteur culturel nga. mais laay kook moom wax ko dànk sax dañoo waroon takk ay rajo yokkaat caméra yi <laughs> pour que nit ñi xam ni moom c'est dans le sang. Mhm. ci deret ji la. macha mhm. am na solo euh, ngay ngay acteur culturel nga gis ni euh, fi mu toll nii tembe. Euh, am na feebar bu nekk ci askanu sunu gaal. ndax sax ba nga indaale li nga xam ne moo di sa masque <laughs> muy corona bi. Euh, euh, ñu gis ni euh, faw gars yi jëlaat li nga xam ne moo di mattukaay yi ci war mesure barrière yi. Mm-hmm. wàññi dajaloo bekk yu ni mel. léegoo léeg sax gars yi am ci ñoo xamante ni xëy na sax dogal bi nga xam ne ñu ngi koy dogal ci ñoom duñ ko bëggee noonu. Mm-hmm. mu jaral ñi nga xam ne ñoo di musiciens yi. Mm-hmm. ñuy marche di def ay ay woote ay yemaleek yu nu mel. loolu na nga ko gisee. waaw ni ma ko gisee euh, mooy ni euh, d'abord en tant que jëmm joo xam ne yàlla natt na ko mu nekkul jullit mhm. nangu dogal bi loolu mooy li jiitu la ca topp mooy ñaan borom bi nga xam ne moom dara tëwu ko te lu ne lu ne mooma mhm. ñu ni ko teggil ñu ko yàlla subhaanahu wa taala moom duñu fa nekk nan ko yàlla dimbale ñoo sarax ñu moom xam na ni ñun lii àtt nañu ko nañu ko teggal yàlla subhaanahu wa taala teggal ñu ko bu loolu weesoo jëmm ju ñu doon nag doye di dañuy am xalaat dañuy am xalaat xalaat ni jàngoro la kon war nañu wut ay pexe ñi nga xam ne seen xel màcc na ci loolu dañoo wax nii dañuy daan dandante maanaam distanciation physique nga toog lu tolloog mètre ak lu ko ëpp tuuti sa diggante koo mën a nekkal ak fu la mën a fekk loolu benn la ci ñaareel bi mu ni set neen ko wéetaloo rawatina raxas loxo yi mu nekk loo xam ne dañ koy fàttali ba ca des mu ni nañuy jël masque yi di ko muure gémmiñ gi ak bakken yi am na ñu koy sàggane nag am na ñu koy sàggane mais li wér wóor mooy yow bu fekkee ne wóolu nga sa bopp ni yow du la dal sax amaane ki nga jàkkaarloo wóolu wóoluwul boppam nii du ko dal kon nga aar ko moo waral donc yenn masque maintenant mbir mi nag euh, dañu yaakaar ni gan la waaye gàng la dafa ñëw jël place toog lii baax nag mais ak a fee baax <laughs> ak a fee baax. Mm-hmm. ak a fee baax damel. Mm-hmm. jàngoro bi dafee baax parce que euh, tax na euh, li nëbbu woon feeñ. Mm-hmm. tax na liñ doon euh, ñàkkal solo jox ko fayda ak fulla bari na fi tey loo xam ni sénégalais daan na ko négligé. bari na fi tey loo xam ni sénégalais yi joxuñu ko woon maanaa te ñu ngi ciy bàyyi xel moo feeñ ci artistes yi. ndax mooy question bi pratiquement. artistes yi tey ñu ngi booloo. mais kan moo xalaatoon démb ak bërki démb ko ñoom nañ toogandoo benn table yuuxoondoo jooyandoo comme ni ñu koy waxee. mu ne a nga naa xëy tëgg de. mais jërëjëf coronavirus. <laughs> coronavirus moo indi loolu. Mm-hmm, mm-hmm. maintenant moom moo tax may wax nii dafa am ay aspects yu bëri nag yu ci nekk. Mm-hmm. dafa am un boo xam mooy dysfonctionnement bi. mooy ay gars yi ñu dem liggéeyi. mooy fexe ba économie bi xaw a gàllankooru la ralentiru loolu muy dem ci secteur yu nekk mais dans le secteur de la musique pour parler du sous-secteur de la musique parce que culture la en général mais sous-secteur musique dafa am nu ko niñ ko tabaxee Sénégal mm-hmm. niñ ko tabaxee Sénégal mooy euh, amatul léegi CD booy jaay amatul cassette xewi na clé USB moo xew mm-hmm. donc artiste bu mu dund il faut mu jouer mm-hmm. parce que jaayatul donc spectacle lay dundee spectacle muy dundee ñu ni ko ah mën nga ko def de mais comme que jàngoro ji am na mënootoo dajale ay nit. donc ñoom ñu nañ ut ay pexe ñu ut ay pexe. pexe yooyu nag euh, defe naa ne ku mu doon ku ne nga di artiste nga ñàkk nekk artiste war ngaa jóg ci ay pexe. mais mm-hmm. ah, je pense que artistes yi ci la lañ nekk ci seen rôle lañu nekk. et ñun au niveau de Dakar dañ taxawal benn coalition boo xam ni mooy coalition des acteurs de la culture et alliés. Mm-hmm. mu di benn kuréel goo xam ni. Euh, bànqaas yu mag ci biir Sénégal ñoo ci bokk ëpp na lu toll ci ñaar fukk mën naa cee lim lu mel ne eh, association des métiers de la musique mm. mën naa cee lim association des managers agent agents bu Sénégal man mii ci laa bokk mm-hmm. mën naa ci lim UNES mu di benn union nationale des événementiels fii ci Sénégal mën naa ci eh, lim euh, yu ci mel ni euh, ay mbootaay ay jigéen lañu di yëngatu ci culture ëpp na ñaar fukk ay sama instrument ñi ngi ci biir euh, ak yeneen i kuréel yoo xam ñu ngi ci <coughs> bi ñu gisee ni mbir mi jaadootul il faut rendre à César ce qui appartient à César ku ci mel ni Daniel Gomes nekk président AMS woote mm-hmm. association yi ku nekk yónnee ndaw ñu taxawal kaam boobu mm-hmm. euh, ñu ni pour saafara mbir mi du rek du rek affaire jàngoro ji mm-hmm. jàngoro ji dafa ñëw feeñal yeneen parce que lu jiitu jàngoro ji di ñëw artiste baa ngi fi woon te amul woon li nga xam ni moom mooy couverture maladie par exemple artistes yi ñu fi ketal bëri na ñi fi dee ndax ñàkk ay ay ay ay moyens bëri na ñu ni donc ce qu'il faut fair mooy que ni comme que président de la république ne na nañ defar plan de relance ñu daal di toog waxtaanee benn plan de relance ñu ni mënuñoo liggéey parce que il faut moom un protocole sanitaire ñu toog defar un protocole sanitaire jox ko ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mu recevoir ni ñu toog waxtaan ak moom ñu valider ko ay technicien valider ko ñu dem gis ministre de l' jamono boobu Aly nguy Ndiaye moo fi nekkoon ñu ubbi commencé ubbi saali yi yenn yi di commencé liggéey ñu dem ba ci yàgg ñu ni war ko ràpp gars yi ni lii nag faaw ñu jóg wax ci moo fi indi woon jamono bii ci ginnaaw déggoon ngeen marché bi noonu euh, sitting bi noonu wax Dakar euh, nguur gi indi ay pexeem ni ñetti fan la yéen amula ñetti fan donc duñ leen ko jox ñu demaat dellu gannaaw indiwaat beneen déclaration. parce que affaire sitting marche du du autorisation ni ko bëri di waxee. déclaration la ñu déclaré ñu bàyyi ñu ñëw. bi ñu ñëwee nag lu bëri xew na ca damel lu bëri xew na ci <laughs> waaw lu bëri xew na sax dañu gis sax am na ci euh, mbootaay goo xam ni bu nekk fii ci Thiès mm-hmm. euh, ñoo xamante ni nee dañuy fippu mm-hmm. ngir gaa ñi yemale mm-hmm. lan moo yemut ba ñuy ba ba ñuy yemale lañ moo tolloo ban bëgg gaa yi tolle la ko hmm. dañuy bëgg ñoom comme musiciens yi eh, ni ñu leen teree ñu teree ko ñeneen ñi wala hmm. dañoo bëgg ñu bàyyi leen ñu kon ne di di def seen spectacle wala hmm. waaw man nag mënumaa waxal waa Thiès donte Thiès laa bokk dugg naa aussi ci association des musiciens de la région de Thiès AMRT bokk naa ci ah, dugg naa ci moo tax ma bëgg laa xam wax li ma ca xam macha allah <laughs> li ma ca xam dinaa la ko wax ndax tey jii may wax ak yow nii euh, ñoom defe naa démb ñu ngi doon def benn conférence de presse. Mm-hmm. Euh, conférence de presse bi ñu doon def waxtaan nañ ci ñoom ku nekk yëkkati ci say xalaat man teewuma ko. Mm-hmm. kon du jaadu may àddu ca loole mm-hmm. waaye li wér wóor mooy ñoom la ñu wax moom la ñëpp daanaka wax ci biir euh, monde de de la culture. mooy bu école mënee wéy di jàng. bu marché mënee wéy di liggéey. bu bu bu oto yi mënee wéy def seen mbir. ñu jox leen kóolute ndax kóolute rek moo tax ñu jox leen bàyyi la ñu dem. loolu tax mënuñoo wóolu artistes yi. mais foofu rek am benn sew sew bu fa nekk. parce que artiste bi waykat bi la ak i instrumentiste am mën naa teg ku nekk un kilomètre ci diggante mais publique bi. ñooñu dafa am loo xam ne manque à gagner la. parce que bu fekkee jël nga benn salle fii ci Thiès. nga jël fu mel ni euh, palais des arts. pour maa ngi jégalu ci publicité bi. Mm-hmm. n'est-ce pas seen waay lañu. <laughs> salle bi daan jël par exemple téeméeri nit. Mm-hmm. kon jamono ji mënatul jël téeméeri nit. il faut ñu wàññi ko. mais loolu la gouvernement bi bañ. Mm-hmm. gouvernement bi ne loolu du ci dal. rappelaa leen di def yéen acteurs culturels yi. mais est-ce que jox na leen ndàmpaay wala. ndàmpaay tuddul. ndàmpaay ngeen ko bëgg a tuddee bon mais dañuy jàpp ni am na fi loo xam ne ñépp ko bokkoon mooy fonds Covid 19 mu nekkoon 3 milliards 500 3 milliards 500 yooyu bi ñu ko distribué ba mu pare delloowaat nañu état bi lu toll ci 600 million de francs CFA. ok parce que il faut ñu leeral loolu aussi parce que ñu bëri dégg nañu jox nañu artistes yi 3 milliards 500 mais au fait. 3 milliards 500 yooyu presque 500 millions yi delloowaat nañ leen ko. delloowaat nañ leen ko nguur gi mhm. ci bu njëkk ba. Mhm. bi ñu defee marche bi bi passé barki démb Dakar mhm. gouvernement bi jóg génnewaat beneen enveloppe. bu tudd bu toll ci 2 milliards 500 millions. pour yenn artistes pour acteurs culturels yi. acteurs culturels yi. faaw baat boobu ñu leeral ko. mu leer waaw artiste bi ak acteur culturel parce que artist bi xëy na mooy ki ñu xàmmee ci way wala ci guitare wala ci yatt wala ci yeneen wala ci théâtre wala ci leneen mm-hmm. acteur culturel bi dafa dem ba ci ki nga xam ni dafa am entreprise am jàpp manager mm-hmm. mooy intermittent yi jàpp producteur mm-hmm. jàpp distributeur diffuseur et ñun ñëpp ay acteur culturel lañu acteur culturel lañ jël nii deux milliards cinq cent millions mi ngi nii ñu mànkoo ni ànduñu ci ñu ñuy jox ndàmpaayu deux milliards cinq cent millions de francs CFA. et eh waa eh ji dafa may xaw a jaaxal. daf may xaw a jaaxal daf may <laughs> xaw a jaaxal lu <laughs> yëkkati lu toll noonu jox leen ko. Mhm. ngeen ngeen ngeen àndoo leen ci eh, ay xëy na mën ngeen koo jël ay la mhm. dëkk bi lu muy métti métti. Mhm. ngeen jël ko toog. xaar ba mbas mi dem. waaw mu baax ñu leeral ni deux milliards cinq cent millions joxuñu la ko Damel joxuñu ma ko man joxuñu ko kenn acteur culturel Sénégal lañ ko jox bi ñu leen joxee trois milliards cinq cent millions yi ñi ci ëppale ñi ci ëppale bi ñu xaymaa li ñu am dafa tekki ni bés bu nekk mille francs lay tekki parce que mi ngi amoon cent vingt sept mille francs CFA te boobu trois milliards lañ wax lañu joxe boo ko xaymaa day mel ni bés bu yàlla sàkk artiste bu nekk dañ laa jox mille francs ci booba jamon boobu ñu ngi diggante mars avril mais ci jamonoy tabaski bi mhm. te ñu indi 2 milliards 500 mhm. waxuma la sax 127 mille mais amaana sax duñu am téeméer parce que lim bi dina yokkuwaat am na ñu ko yëgul woon. Mhm. am na ñoo xam ni ci parax parax bi tax nañu fàtte woon leen. ak yeneen ak yeneen. amaana. trois ba lan la seetlu nañu lan. Eh, mooy deux milliards et quelque. deux duñu ko laal. duñu ko laal. duñu ko laal bi nag nañ ko dégg bu baax du ko laal bi mooy. bi ñu toogee euh, àllarba mercredi bi suñu ginnaaw dañu toog ministre Abdoulaye Diop ministre de la culture boobu ñu ngi toog nekk ñun ci jóge ci meeting bi euh, ci sitting bi di def évaluation mu sone téléphone jot euh, Ngone nduur boobu jamono mooy porte parole bi ñi ko ministre bi suba da leen di recevoir Ngone fi ñu toog noonu mu ni ko ñun ñëpp ngi nii toog mais nag bu ñu recevoir te am na ñoo xam du ñu ànd ak ñoom parce que daf ci am ñoo xam ni euh, yàlla dafa def ngor moo jeex ci ñoom mm-hmm. am ñoo xam ni lu dul seen poos soxalu leen directeur des arts bi fi nekk nii nga xam dafa dem muy kundul bàyyi fa ngoone woo Daniel Gomes Daniel Gomes waxaat ko benn baat bi ñu xëy ci àllarba ji Abdoulaye Diop recevoir ñu ba ñu demee fekk nañu am na ñu mu njëkk recevoir ñu jàpp nañu ñooñu mu recevoir naka sudul noonu moo leen soob parce que seeni poos moo leen soxal ndax bu leen seen poos soxalul woon dañ dem ca marché ba mhm. bu leen seen poos soxalul woon du ñu xool xaalis ndax am na lu gën a farataal xaalis mooy li ma la wax léegi protection sociale artist mi ngi fi copie privée mi ngi fi euh, guichet unique bi mi ngi fi statut de l'artiste mi ngi fi loolu yépp nekk loo xam ne ay ngëneel la ci artiste bi milliards yooyu bu ñu bàyyee artist mu liggéey dina ko amal boppam ñu ni ministre bi le protecteur des arts le chef de l'État moo joxe deux milliards cinq cents mais gérer ko yow monsieur le ministre yow mi ministre bi kay dara waru laa ump ci aar bi fii xam nga ku ko yeyoo ku ko yeyoowul xam nga ñu nekk artiste ñu nekkul artiste yow gérer ko ñun waa kaam kaam ma fàttali mooy coalition des acteurs de la musique et alliés ñun duñu laal duñu seet waaye nag ñu ngi lay yëgal ni fu dërëm dugg nañ ko contrôler fu dërëm dugg nañ ko contrôler kon kii acteur culturel boo toogee sa téléphone sone ministre bee la woo wala ay ndawam ñoo la woo boobaa yow ak sa bopp la est-ce que leer na Thiès bu ñu nee ñoom duñu laal xaalis bi seen position la am nañ ci droit parce que man mi Issa Dial waxaluma Thiès waxaluma association des musiciens de la région de Thiès mm. je fais le point en fonction du niveau national li nga xam ni au niveau national ñu ngi koy waxtaanee ak ministre bu communication culture ministre de l'intérieur ba ci sax ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr jot na protocole bi ñu ko jox pour wan ko ni effectivement jàngoro jàng fi mais mën nañu di liggéey te du yàqal dara ci askan wi. voilà kon daal ñoom laal Euh, loolu moom amoo ci amoo ci amoo ci kaddu wala loo leen di conseiller expliquer leen wax leen ba ñu euh, def li nga xam ne mooy xëy na ni mu war a demee. moom mbiru mbooloo boobu mbooloo koy dogal. association la bu ñu mànkoo ni dañuy jël ñoom la engagé bu ñu mànkoo ni duñ jël ñoom la engage yàlla dogal na euh, démb ci àjjuma ji laa dugg ci biir. Euh, association boobu. léegi bokk nga ci laa bokk laa jokkoo ak Makumba. am nga droit addu ci. waaw waaw waaw waaye gan da we wéy yeewi ay bëy <laughs> gan moo dul yeewi ay bëy mhm. ginnaaw démb ajjuma la. Mhm. tey la samedi ma toog ci plateau bi di def ak yow waxtaan. Mhm. diisoo kenn fekkoo gu ma réunion xamaguma nañu doxe waaye samay xalaat am naa ko. bu ñu ca yeggeen ma fekkee ko dinaa leen ni lii mooy sama xalaat. amaa mu dem amaa mu du dem. kooku moom mi ngi des ca mbooloo ma ndax dañuy wax ni la loi de la majorité te man loolu laa gëm. macha allah laa gëm macha allah kenn du moom kenn du moom mbokk yi ñoo ko déggandoo dafa mel ni euh, euh, mbir mi leer na naññ naññ naññ ayca tey jii kon lan ngay ñaax ñi nga xam ne ñoo di acteur culturels yi comme ni nga ko waxee woon sànq rek ci euh, diiru feebar bi ñu ne. d'abord ñu tirer les enseignements gis nga gis nga mbir bu ne tëll parce que loolu dañ koy faral di waxtaane sax ñun fële au niveau de l'association des managers et agents d'artistes du Sénégal mbir bu ne tëll il faut ñu bàyyi xel lu bëree bëree bëri jàngat yi ñu ci mënee tirer parce que am na njàngat boo xam ni c'est au niveau sanitaire am na njàngat boo xam ni c'est au niveau économique am na njàngat boo xam ni c'est au niveau social xeetu njàngat yépp dañ ko war a def mais ñun ñi nga xam ne acteur culturels yi jàpp naa ne bi ñu njëkk a def moom mooy lan la ñu yàqal moom la ñuy wax leen dysfonctionnements. Mm-hmm. parce que boobaak léegi kenn jouetul am na ñu jaay seen instrument ñi luyee woon pantre ñu ngi leen di génne ñu yore woon kër ñi ngi am problème mm-hmm. euh, ñi seen doom doon jàng ainsi suite donc les conséquences économiques ñëpp gis nañ ko mm-hmm. mais lan la ñu indil lu baax moom wax naa ko sànq mooy que ni tey jii sax nit ñaa ngi toog di waxtaan loo xam ni amul woon. wala néewoon na tumranke woon na biir Sénégal ay artistes toog kii di def musique kii di def euh, théâtre kii di def lee ñu bokkandoo ñun ñëpp. mais Sénégal moom kenn mënul wax culture te ah moom moom lan la ci lan la ci àddoo ak lan ci laaleeg mbir mi. Youssou Ndour man euh, noonu laa ko jàppee parce que ba ñuy door kaam bi di dox kenn déggul Youssou nduur kenn gisul Youssou nduur xamuñu ni woon sax Youssou Ndour mi ngi Sénégal. mais xamoon nañu ni artiste la comme ñeneen artistes yi comme Dame Sène comme Mout Faye comme comme comme comme euh, ku ci mel ni Makumba xamoon nañu ay artistes lañu mbir mi dem na ba maanaam euh, li ñu naan euh, ndox egg na ci bëli <laughs> olof moo koy wax mu ni di nga dem ba ndox egg na la ci bëli booba ñi ngi nekk ci diggante autorisation wala bañ am autorisation sitting bi dina am sitting bi dafay am ñu dem gis ministre de l'intérieur bi nga xam moo fi nekk nii tey ci ndimbalu Youssou Ndour macha parce que moom moo jóg jël téléphone woo ministre bi yombal suñu gisee ak moom ñu toog ak ministre bi wax ko suñuy joytu mu xamal ñu ni joytu yooyu dégg na ko waaye jàngoro ji toll na foo xam ni du mën a baax ñuy bàyyi marché bi muy benn ñaareel bi it mooy gi euh, fi ñu déposé dëppoowul ak sart réew mi te ñun artiste ñun acteur culturel suñu wareef yépp mooy rafetal suñu wareef yépp mooy teg ci yoon suñu wareef yépp mooy tegtal kon kuy def loolu waroo yàq ñu dellu gannaaw fekk ci ministre may ko ko bi ñu ñëwaatee déposé waat waroon def marche bi bërki démb ministre bi wala ma ni gouvernement bi làbbaliwaat mbir yi génne lu toll ci quatre camions yoo xam ne bu ci nekk sa ndox mu tàng nga yore taxaw GMI yi taxaw fi ñuy tuddee place de la nation ñu gën ko xam ci obélisque ñu encadré ko mm-hmm. artistes yi ni à sitting rek walla néew rek. mais loolu foofu laay ñëw yow pour wan la Youssou def intervention parce que euh, olof bañ na lëg lool waaye nangu na ni gudd nopp la <laughs> mbaam li muy ñaaw ñaaw ci jur gi la bokk la mu def kenn woowu ko ni ko def ko mm-hmm. man je suis membre plénipotentiaire de la CAM réunion yëpp laay fekkee rencontre ñu ministre bi recevoir réunion ñu def yëpp la amul fu ñu ko woowee ni ko Youssou jógal donte sëram mi ngi ci biir moo nekkoon porte parole bi di Ngone Ndour woowuñu ko ni ñeneen artistes yi def woon temps Covid bi ku nekk def li nga mën ci ay pexe pour dimbali moom it noonu la jóge def ay pexeem nii naa jóg wax te kenn sañu koo bañal parce que it nangu nañu ni Youssou Ndour Youssou Ndour la ci Sénégal dañ ko ko nangul loolu yàlla dogal bi mu waxee expliqué ñu ni ko sëñ bi jéego yoo mën a dox en tant que ministre la ministre conseil wala en tant que artiste wala en tant que citoyen yow la engagé waaye ñun li ñu bëgg mooy sitting te dinañ ko ci lañu def suñu sitting ba ñu paree sitting di évaluer ci la ñu xamal ni ñu état bi kat ne dina génne deux milliards cinq cent. deux milliards cinq cent yooyu dégg naa ñu bëri naan Youssou Ndour ko wax Youssou Youssou waxul ko defu ko. Mhm. Youssou nduur mhm. dégagé wul. waxul deful lu jëm ci deux milliards il a juste moom def facilitation la def pour que ministre bi recevoir la coalition des acteurs de la musique et alliés mm-hmm. la décision de deux milliards cinq cent émane chef de l'État le protecteur des arts moom moo jël deux milliards de francs CFA en conseil des ministre jox ko ministre de la culture Ablaye ab Ablaye Diop moo ñu jox information bi ñu ngi toog les médias étaient présents mu jox ñu boobu information maintenant. mais moom ci waxu li mu ci def la mu ca wax wax naa ko. macha allah la mu ca def la mu ca wax. def naa ko no mais Youssou il n'a rien à faire dans ça. ñun adresse nañ ko des remerciements vivement. en tant que acteur culturel. maintenant mu des ku ci nekk ak na koy gisee. xam nga bu ñu toxalee kaam ñu ni c'est la coalition des acteurs de la culture. Thiès mën naa jóg ni mën am naa association des musiciens de la région de Thiès. Saint-Louis mën naa jóg wax leneen Diourbel ku nekk dafa am une certaine hausse mi ngi mel ni loxo bii ma tàllal nii rek buñ ko nee nii loxo lay doon waaye su ma nee nii baaraam la waaye baaraam bi ci loxo bi la bokk. c'est un peu ça c'est un peu ça. ndeysaan ah, am na solo am na solo ku ko dégg xam ni vraiment communicateur. ndaanaan ku li kaat ku li fàttaliwul ndaanaan comme ni ko sama waa ji di moo toog ak man tey dam Damel. Euh, dam seen daf moo ni woon koo toogal damm ko waaye est-ce que waa ji damm ma gars yi. waaye <laughs> ca merci beaucoup ñu koy kontaanee bu baax a baax waaye itam di ko jox euh, di bég ci moom itam bu baax a baax a baax euh, di kontaan tamit ci woo nga daal di ñëw rek daal di daal di ñuy nangul li nga xam ni moo di invitation bu baax a baax a baax mm. waaye ca tey ji boo doon tàggoo ñi nga xam ne ñoo di am internet Thiès Info loolu tàggoo tàggoo mm-hmm. ma leen tàggu émission bi du ma leen tàggu du leen tàggu <laughs> <laughs> da ma yóbbaale rek ma dese leen lépp ci xol la jóge jëm ci xol li wér mooy que ni Thiès gii mm. sunu Thiès a mm-hmm. bu ñu moytuwul nag mu nekku kees <laughs> nañ fexe ba mu nekk Thiès mm-hmm. man damay toog léeg-léeg euh, bëgg ci sama bopp léegi ma toog ba yàgg safaan bi ñëw mhm. su ma bëggee ci sama bopp dama naan Thiès laa dëkk lu mu fi doon lu ne ci Sénégal ci segment de la vie bu mu doon Thiès mhm. la cosaanoo Thiès pour ñi nga xam ni xëy na ñu ngi topp taarix li gën a ndaw li gën a néew premier président de la république bu Sénégal Léopold Sédar Senghor fii la njëkk a nekk maire Thiès la grève de 68 avec les cheminots Thiès la woon bu ñuy wax une alternance politique au Sénégal ou générationnelle ñi ko porté woon sont de Thiès bu ñuy wax ay ay ay ay expérimenté wu ci côté médias yi ñu nekk tey jii nii les premiers médias hors Dakar c'est voyez-vous donc dafa nekk yoo xam ni mhm. fukki at ak ñaar du ay fo de du fukki fan ak du fukki fan euh, ñaari fan mhm. fukki at ak ñaar du ay fo mhm. donc dafa nekk yoo xam ni dama ciy bég ma toog ba ci yàgg ma toog ba ci yàgg sama xol bi naqar yi moo indi concept boobu may développé tudde ko Thiès suwaat Thiès soit Thiès nekkal Thiès soit am nga ñuy wax Thiès waa nga man Thiès waa laa ki man Thiès waas laa mais dama ne Thiès soit Thiès nekkal mm-hmm. parce que Thiès bu nekkee Sénégal nekk c'est la seule région bu am ñetti département département bu ci nekk am potentialité économique boo xam ni géej la mm-hmm. muy Thiès nga dem Kayaar mm-hmm. nga dem Mbour Mbour nga fa nga dem Tivaouane mbooroo nga fa ñu am suñu industrie am suñuy école am des potentialités li ñuy tuppee tubaab di wax avantage comparatif dañ ko am et bu defee marketing territorial bu wóor Thiès amul ku koy duñ ko jege sax wante ma la di ko laal. allah donc gars yi ma dem te ñëw yóbbaale leen ma dese leen. <laughs> ayca kon ni mu ko waxee noonu lañ koy defee ñu dem te ñëw yóbbaale leen ñu ñu dese leen ayca kon mbokk yi ñu koy kontaane bu baax a baax waaye itam ci ko bigi eh, di kontaan ci moom eh, di ko ñaanal bu baax a baax nag jàmm ak salaam. parce que yow moom da nga war a am jàmm ndax xam-xam bi ci yow waxuma la Thiès waxuma la Sénégal waaye àdduna bi yëpp yëpp yëpp yëpp dañ ko war a kon nag mbokk yi am internet Thiès info loolu mooy li xam ne moom lañ doon leen indiloon ak seen mbokk seen xarit Fall Damel mbokk yi kon jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci yéen ñi ñuy seetaan ba mu doy eh, def ko ci moom mi ma toogal ba mu doy doy day eh, def ko ci ki nga xam ne moom laa jàkkaar lool di aada cameraman nee naa leen moo ci man ci mim réew eh, ko ci man Fall Damel jàmm ak salaam kon yàlla na ko ajo bu la neexee non dama bëgg gërëm ñi ma jox kàddu sañ a jox ñi ma jox ba ma sañ wax fii mm-hmm. commencé ko ci sama sama président mm-hmm. mu di Moustapha Goudiaby mm-hmm. ak le secrétaire général nga xam Moustapha Diop moo ko yor loolu mooy ama Mm-hmm. AMA c'est l'association des managers et agent d'artistes du Sénégal. Mm-hmm. mais également mu nekk membre bu coalition des acteurs de la musique et alliés. Mm-hmm. foofu aussi ma nekk foo membre plénipotentiel. ñoom ñu jox ma mandat pour ma ñemee wax ci li may wax nii. macha allah foo jaar euh, mais damay gërëm également élage Hadj Baba parce que maay chargé de communication. te sunu diisoo dafa yaatu ci ni ñuy jàppalee artistes yi dañ ciy waxtaan guddi ak bëccëg. donc c'est important ñu ma gërëm leen. gërëm benn waaye bu ma xamoon boo xam ni li ma koy xam jàngalekat la woon mujj gi mu nekk ci sekkaay yore yore yore clavier am mujj gi mu dem ba ci yàgg taxawal benn euh, plateforme d'information gars yi dem ba yàgg di wax Thiès Info c'est ma lay gërëm. di la gërëm bu baax a baax waaye tamit di gërëm Euh, Fall Damel wala Damel Fall <laughs> ñoom ñi nga xam ni ñoo ñu may tey ñu mën a wax ak àdduna euh, bi parce que naa la ñu ngi fii cees mais ñu ngi wax ak le monde entier. maa la ko wax gars dem naa de. ayca mbokk yi ah ma la yow ba faaw yow yow après yow on se connaît yow <laughs> ayca mbokk yi ñuy bég ci moom mbokk yi tamit nag ma leen di fàttali nii euh, am na lu bees tàq lu yees lu ñu teg muy lan web rajo jaspora Sénégal di rajo boo xam ni nee naa leen fii la nekk ci Thiès kaay benn dëkk ko yéen ñi nga xam ne yéenay waa diaspora bi yéen ñi nga xam ne yéenay waa diaspora bi ñu indil leen ko rajo boobu euh, ku dem ci euh, web bi di nga ko am waaye itam euh, képp koo xam ne itam yaa ngi ci li nga xam ne moo di Thiès Info mën nga ko am ñu fay def ay émission nag chaque jour de 9h à 12h itam ñu koy def de 19h à li nga xam ne moo di 21h mbokk yi des fois nag itam dinañ dem ci li nga xam ni sax moo di wax li xew ci dëkk beeg yu nu mel en tout cas rajo buy soog a ñëw la gan la comme ni ko gaañ di waxee di ñaan mu ah ayca <laughs> di ñaan mu nekk fi gàng di seen rajo yéen waa diaspora bi di seen rajo yéen waa Ceskaay di seen rajo yéen waa Sénégal kon nag jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci yéen ba mu doy def ko ci man def ko ci askanu sunu gaal euh, seen mbokk seen xarit Fall Damel sëtu buur seen bàyyi Sëriñ Saliou Mbacke jërëjëf